ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi taamu di ànd ak ñun saa ne ci seen déformation bi di Dakar People ñu am mbégte mu am solo ñun tamit di ànd ak yéen di leen indil ay information fépp fu ñu ko mën a jëlee ci Sénégal ak li ko wër noonu lañ ko fas yéene continuer tey sekk waxtaan ak ku nga xam ne tamit sénégalais yi ñëpp xam nañ ko daanaka mu yàgg a génn ci média yi di yëkkati kàddoom jëmale ko ci li xew ci dëkk bi muy Selbé Ndom mu nekk jëmu ju nga xam ne véritablement Sénégal yëpp daanaka jëlu sax ñu ne di yaatal xam nañ ko bu baax baax moom daal la ñëw seet ci këram tey fas yéene sikk waxtaan ak moom ci actualité bu Sénégal li xewandi ak li ñu njortu ni war naa mën a xewandi ci lu ñëwagul mu nekk ponk bu am solo bu nga xam ni moom la fas yéene développé ak moom sikk ci waxtaan ak moom daal ko ciy indi ay laaj moom tam mu jox ñu ci ay tontu mu nekk mbégte mu am solo également ànd ci ak moom de ce fait bàyyi rek ànd ak moom mu nuyoo ak askan wi ginnaaw loolu ñu dem ci mbir mi soxna si nuyu nañ la waaw di wax aouzu billahi mina sheytaani rajim sant yàlla rek sant yàlla bi may sant yàlla sama borom xam naa fu mu commencé waaye xaw ma fu mu yem di julli ci yonent bi muy sangu-sang yi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba Xaadim Rasul ah di ñaanal Serigne Mountakha Bassirou Mbacké suñu borom bàyyi ko suñu kanam mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax xilaafaam gi neex na torop mi ngi dimbale askanu Touba mi ngi dimbale ñëpp daal tubaarikàlla kenn ku si nekk nag am nga sa wóllëre benn wóllëre laa am ci àdduna bi Seydi Mouhamed Moustapha Sy ibnu Cheikh Tidiane al Maktoum macha allah si Malick ku baax ci man ku baax ci àdduna bi nit ku baax ku woyof bëggal ma boppam fonkal ma boppam di sama wëllëre gàmm gi bu ñëwee invitation d'honneur la may jox barakallahu ah li ma doon defal benn Serigne Moustapha si la yàlla yabal ci man maanaam mu dima dimbali ci tabaski moo tax tabaski lu mu métti métti yëguma méttiwaat bi ndax duma daw di wëri xar du ma woo kenn ne ko may ma jógu xar nàngam ak nàngam ah ka ñaareel ka yàlla ka yàlla yónni ci man muy Waly sekk moom aussi damay jékki-jékki rek ñu woo ma ne ma xar maa ngi ñëw barakallahu yan na ki sunu borom def jàmm ci ñoom yokkal leen di xéewal barakati laa ilaha illallah muhammadu rasulullah nga kontaan nag ci Aïcha Aïcha Aïcha Dakar people maa fii jàmbaar bi ma koy xam amagul borom kër macha allah mu yàgg ñafe nag loolu laa ko xamal macha allah jom ful la waxam sax bëriwul waaw waaw. alors Selbé balaa ñuy commencé gis nañ ko ni kat yow da ngaa sa ay pot yoo xam ni ay marine yu am solo la mel na ni lii lan la ak foo ko foo ko defar yow yaa ko defar wala dana ko defar. may man Selbé man. fi mu waa daa dam ci sama loxo bi man dama foogoon ne. Uh-huh. restauratrice lay doon moom laa choisiroon gis nga nokkos bii uh-huh. nokkos bi am na lépp ay Aïcha bu ko jëndee uh-huh. lim ciy dolli mooy euh, poobar moutarde vinaigrette te bu ko neexee uh-huh. su ma waxee ne ma mercel bi defaral ma ma defaral ko ko nga xam ne day tibb rekk def ci ren daal bëgguma benn xale bu jigéen xeeñ laaj wala leneen ci kàttanu yàlla nokkos boobu moo nekk nii moo nekk nii ah, nga defal gis nga dama dugg si rek Aïcha ne ma waa meer meer lii xeeñ na di tubaarikàlla day dem ci yaasa uh-huh. mën na dem ci ceebu yàpp uh-huh. maanaam mën na dem ci dibi mën na dem maanaam fépp mën na dem ci gambas crevette yu nganda yooyu tubaari kàlla doo ko ci defee moom sa jëkkër du la du la yëpp mukk te du takk ñaareel maanaam mu ñëwaat ci soosu kaani bi moom tubaari kàlla nee naa dama ñamal Aïcha ah, <laughs> da ngay lekk kaani <laughs> da ngay lekk kaani eh, ah, Aïcha ñamal nga joxe léegi léegi résultat bi yaa rasulillahi Aïcha bul tuur soos bi <laughs> kon kon li la waa eh, eh, bul tuur suñu soos bi da cee wéeru doole ji. Ah, ñamal yaa rasulullahi wallahi dafa neex. en tout cas saveur bi moo ngi moom maa ngi koy sentir. defal tuuti rek. barke yonent bi wallahi azim dafa neex. man rus naa togg lu neexul. kaani bi neex na de. yàlla boo toggee sa ceebu jën bu weex ba def ko ci. barke Seydina Muhammad boo koy lekk doo toog doo taxaw yàlla sedda na ko. lii nokkos bi gis nga marinaat bi mm. gis nga marinaat bi mm. mi ngi nii pare na ren bëgguma benn jigéen takk dara liggéey dara lépp a ngi nii marinaat bi nag mu ngay njëkk a sot ci sa yàpp mm-hmm. mélangé doog a jël nokkos bi sotti ci biir jeex na mm-hmm. te ñuy bàyyi jël diwlin bu bari ruusi ko mm-hmm. nañu bàyyi jël diwlin bu bari ruusi ko jël yàpp bi tëmbal graisse gi génnaat nga jël sa pomme de def ca jël moutarde di def si maanaam boo ko lekk boo ko lekkee lu bari da ngay fër nañu jël marinade bi boole ko ki ndawal li yëngal jël maanaam euh, euh, euh, kii bi nokkos bi def ci yàpp bi teg mu muus bu xasee ba muus maanaam diw gi day des ci cin li hmm. graisse bi day des ci cin li maanaam nokkos bi dafay des nga jël sa soble rek des ci biir yëngal jël sa marinade laal vinaigrette bi taxaw nga am sël kii bu am jom mën nga si lekk ba doyal te doo fër numéro bi moom gars yëpp xam nañ ko. waaw parce que gis nañ ko ni dafa am jaaru marketing. nga loo ci taf mu rafet ba bëgg a dee. mi ngi nii Selbé ndoom maa ngi ci def nokkos. liir ko. waaw da ciy def Selbé jigéen nokkos noppal jigéen ñi.

47 80 25. waaw 447 boobu. 80 25 mooy sama numéro doom. waaw maanaam ku bëgg a seetlu. soo wootee ci numéro yii rek ci kàttanu yàlla di nga ma jot. parce que 744 bi 39 18. tout le temps ci laay def live. mais 77 737 67 46. toujours maanaam mi ngi libre. 447 bi aussi. mi ngi mi ngi libre kon maanaam wàllu waa nga noonu ku soxla rek wooteel bu dee Italie la GP suñu xamee fu mu nekk dañ ko yóbbu ba ci GP itali bi GP France GP États-Unis maanaam borom restaurant yi suñ ñëwee ma jaay leen maanaam dibiteri yi buñ ñëwee ma jaay leen noppal ñëpp daal vraiment moom laa def maanaam euh, société yi maa ngi préparer lëkkaloog waa Auchan pour defal lañ ko lëkkaloog Dembaka incha allahu rabbi pour maanaam dina gën a tas daal mhm. nekkul ne dama koy def tabaski bi rek bàyyi ko mhm. ci kàttanu yàlla day law mhm. voilà comme ni ko gisee mu nekk initiative bu am solo bu nga xam ne moom Selbé jot na koo fësal képp ko nga xam ne aussi bëgg nga ko jàppale ci lii mu yëkkati entreprise bi mu nama amal nga jënd ci produit yi mm, vraiment ni team nii gis naa ko ñam naa kaan bi également am na gu wax dëgg yàlla am na gu <laughs> am na gu am na ñu jóge ci loolu dem ci wàllum actualité mhm. parce que ñëpp xam nañu Sénégal kat jamono ji wax dëgg yàlla bu ñu waxantee dëgg yëngatu na mhm. jëm ci wàllum politique mhm. ñëpp gis nañ ka ni vingt euh, mars 2021 amoon na fi ay bakkan rot le deux bi passé le premier bi bu verdict rombé ay bakkan rotaat ci ñu dëg ma le vingt cinq bi nga xam ñoom opposition bi nee nan seen xel xalaatu ñuy seetaan Ousmane Sonko muy tabaskee ci barricade këram nee dañ dem jëli ko waral nag police ak gendarme bi ñu commencé di jël seen matuwaay mbir mu ni mel ban jàngal nga ci am waaw xam nga Ousmane Sonko moom c'est petit frère suma rakk la ndeysaan maanaam euh, barricade boobu neexul kenn barricade boobu neexul bu ñu sañoon njabootam dina dem doxantu ji moom bu bëggee dem fenn ànd ak njabootam dem dina dem li am Sénégal neexul kenn waaye sunu borom dafa def ku ñuy wax aji saar maanaam lu ñuy njaaga rek aji Sarr mooy njaag ndax moom moo ko porté plainte ba tey lii yëpp am ci ba dee yëpp am ci ndax maanaam violé répété répété répété loolu moom du viol viol mooy ab jànq bu ñu tiim tëdd ak moom deret ja tuuru ah nga xam ne du mën a dox boo gisee ku góor yegg ci moom hmm. ah ñun ñuy jigéen hmm. nekk mag hmm. samay doom yi mag ñu koy ñu leen di takk maanaam ñuy ànd ak seen borom kër di ma woo ma di leen yëkkati di leen yóbbu ca duus ba di leen sang toog ak ñoom yendoog ak ñoom di leen ruyal di def diw tiir maanaam man xam naa lan la man jigéen laa duma góor xam naa lan la waaye ñu ngi ñaan yàlla yëpp yem fi barricade boobu nag xam naa justice rek ñu mu dem rek moo tax bëgguñu mu génn di dem fenn wala ñu mu génn di wax mm-hmm. ndax ginnaaw suñu borom dogal na mm-hmm. ah justice dem na justice mm-hmm. affaire bi dem na justice mi ngi traîner depuis depuis deux ans affaire yaa ngi jaxasoo nangam ak nangam maanaam ba ñu dem ba àtte leen bi biñ koy àtte nekku fa deux fois ñu ngi koy àtte nekku fa yoon tëj ko ñaari at xam nga man mënumaa xëccoog procureur mënumaa xëcc juge ba mënumaa xëcc président de la république ndax loolu yoon président nekku ci ku ci tudd président danga koo tooñ président yóbbul Ousmane Sonko ca fële yóbbu ko ca kaso ba yóbbu ko fenn Ousmane Sonko yoon la amal problème waaw aji Sarr moo ko porté plainte comme nii tey yàlla tere suma la porte woon plainte boo ci tuddee président danga koo tooñ ndax président porté wul apparemment yow ñoo am ay muskila comme ni ko arab di waxee ñu am jaxasoo maanaam di ñaan yàlla rek Ousmane Sonko am jàmm vraiment Ousmane Sonko bu amee jàmm la jeunesse suñu doom dañuy day am jàmm ndax Ousmane Sonko jinne yi ñoo ko bëgg surtout jinne yu jigéen ñi sax xam nga xale yu góor yi ñoo feeñ ñi mais jinne yu jigéen dañu bëgg Ousmane Sonko torop jinne yu jigéen ñi dañu bëgg Ousmane Sonko yaa Ousmane maanaam xoolal mbamb Ousmane Sonko bii rek xam nga affaire baatin am na ci nit ñi nga xam ne dañuy gis di xam xam nañ ne kii am na affaire bu ci laxasu maanaam man samay jinne bu may tudd Ousmane Sonko rek lu bëri rek da ngay dégg ñu ne ma kii bàyyi ko xel de waaw bàyyi ko dañ may dañ may araftu suñu borom def ne jinne yi bëgg nañ ko ba pare boo xoolee ful bi topp Ousmane Sonko nga xam ne lii nii du neenuk neen billaahi wallahi watalaah jigéen ñi jinne jigéen ñi ñoo gën a bëgg Ousmane Sonko ka xale yu góor yi boo gisee affaire nga xam ne lii am na lu si nekk waaw maanaam di ko ñaanal jàmm rek di ñaan Sénégal suñu borom wàcce fi jàmm ak salaam bu ma soñoon kenn du barakate barikate kër Ousmane Sonko mais moom nday mbili ji dañuy ni borom bopp la ah non man gisuma ci moom loolu vraiment yàlla moom ma tiim su fekkoonte ne gis naa ci moom loolu daal xam naa ne daal métit bi daal xam naa ne euh, métti woon na mais am naa yaakaar ci yàlla ne lépp dina dëñ waaw njëkke métit mujjee lu neex mooy gën te am naa ci yaakaar ci yàlla waaw. alors ci beneen côté ba tamit xam ni ko wax Ousmane Sonko instant wax ndax ñoo nekk ñi xëccoo réew mi ñu dëgg man élection présidentielle yi nga xam ne daanaka ay juróom-ñetti weer rek lu ñu mel moo ci des. moom taxaw na France ci ñaari fan yi ñu génn daal di defal xelu ñi nga xam ne ñu ànd ak moom yéen kat dal leen ci ànd ak jàmm ak salaam dafa am lu ma commencé mébét bu ma nekk ci dama koy àggale ci dañuy am victoire 2024 loolu day mel ni am na lu mu ju waaw xam nga man damaa wax lii eh, mët na ay 4 ay cinq ans avant deuxième mandat. Hmm. wallahi laa wax troisième mandat bi avant deuxième mandat di am laa ëpp na cinq ans wax naa ko bien a hmm. dama gis Marème Faye Sall ak Macky Sall. Hmm. maanaam li nga xam ne moom laa njëkk a gis xam nga man kenn dugaluma àjjana yaakaaruma kenn ku dul yàlla lu ma am maa ko liggéey sama kër gi maanaam kenn woowu ma ne ma kaay ma jox la 10 millions nga dolli ci sa tabax bi ñuy bi ma tabax sax kenn ni yëgu ko ndax 2013 laa commencé tabax bi 2014 bi ma demee màkk ba ñëw fekk fii amagul fenêtre noonu laa ñibbisee ma ne du ma jóge màkka dem benn ci benn kër bu may luwee fii la man maa njëkk a toxu si fii laay fanaan yooyu xaw maa rey maanaam Abdou Diouf ba muy wàcc 99 hmm. hmm. Abdou Diouf dama ko gis mu gàddu benn kees di wàcc escalier yi ki ma dëkkal ma ne ko Ablaye Wade day toog fekk maa ngi Ablaye Wade ñuy daje ci géej ma dugal sama loxo ci siwo hmm. génne pochette kalpe góor ñooñu mu tooy xib xaas baa ngi ci biir mën a ko jàpp Ablaye Wade Ablaye Wade dafa am loo xam ne moo ko téye woon pour pour réew mi naat ba loolu demee rek ba loolu daanoo rek ci la xéebal gi nekk péex moo xam ne kenn xamul ba ma gisee loolu nag ci Abdou Diouf xam nga ay Aïcha sama fii mm-hmm. dama ciy wax yu am solo mm-hmm. yoo xam ne dëgg la loo xam ne nit ñi buñ ko déggee dinañ xam ne kii boroom xam-xam la mm-hmm. Dakar people duma fi wax affaire yu ñàkk def naq saxan nag duma ko wax maanaam euh, loolu weesu Abdou Diouf wàcc uh-huh. ki ma dëkkaloon yal na ko yàlla xada àjjana àjjana maanaam bi ma yeewoon ne ko Abla Abdou Diouf day wàcc dafa ne mu du dëgg caam boobu maa ngi dëkk ci benn pentre ma ne ko Abdou Diouf day wàcc mu ne ma du wàcc laa wax ma ne ko laa Wade day toog ba muy dëgg boobu xaw ma média yi xaw ma kenn média aw ma woon possibilité pour dem ci média possibilité bi ma amoon bi ma gisee Macky sàll wiiri ci ginnaaw pale bi dajji buntu ab euh, kii euh, Ablaye Wade ma seen Ablaye Wade ci chaise bu gudd bi mu woon ma ginnaaw ci laa ne Ablaye Wade day wàcc ci laa wër Macky Sall ba gis ko fii yëmbal ci jumaa laa yéen bii mm-hmm. mu am kenn koo xam ne dafa nekk ci biir ànd ak Macky Sall mm-hmm. moo ma ñama président mi ngi ñëw mm-hmm. ma jóge sama kër are Fatou Laobé dem fekk Macky Sall fu mu nekk ma taxaw ci bunt ba da doon jaare ji Chérif Ousseynou ma taxaw ci buntu bi rek maa ngi sol robe bu ñuul du ma ko fàtte taxaw rek bi mu waxtaanee bay génn rek gàdd koy daw bërëx bërëx rek rek ma ma kii ñu bëgg maa puus rek ma yuuxu ne ko Ablaye Wade su wàccee yaa fii toog yaa ciy topp mu daan ne gàdd koor yi bàyyi leen ko ñu bàyyi ma mu téye sama ñaari loxo ne ma yow la kan ma ne ko man la Selbé Ndom maa la gis nga wiiri ci ginnaaw bunt ginnaaw ba moom nga wiiri dajji bunt ba makki sàll benn xarit la am ku ñuul la ku am bët kooku mu yëkkati bunt bi dajj ko hmm. barakati laa ilaha illallah ma seen Ablaye Wade ci biir foofu laa tegoon a Macky sàll mooy topp ci Ablaye Wade mu am Ablaye Wade dégg may wax mu yónnee ñu jël ma yóbbul ma Ablaye Wade zéro heure laa dugg biir pale bi Ablaye Wade toog nii ma toog nii Ablaye Wade toog ne ñuy waxtaan ba trois heures du matin xam nga li ma ko njëkk a wax ut siw ma fi dara dangay ngay jóge fii <laughs> kan mooy jàkkaarloog président yore ay milliards nga ñëw taxaw ñaanoo ko dërëm ne ko ñaanuma la dara danga fii génn mu ne ma ko fi toog ma ne ko Macky jaar na ci bunt bi gestu rek gis bunt boobu loolu de mooy dëgg pire damaa tiit nu ma mën a tëddee fii sama biir kër sama biir nekk mën a xam pare ba lu fa nekk bi ma gestoo bi ma gisee buntu damaa tiit daraje Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ma ne ko moo fiy toog mu a ma léegi nag ma ne ko amul sarax oh. su ma neexoon ma fen ko ne ko jox ma nangam ah, xam nga lu tax ma def 21 nag hmm. parce que Ablaye Wade mus sa nangu ne Macky Sall da koy wutu mbetteel la ci moom mbetteel la ci moom ba ñu ci woon dara ñu won ma billaahi wallahi wa yàlla bu ma am dara ci Seydina Muhammadin dañ ma ne naa tour 21 nag bu ko defee maanaam ma dem génne ko bi ma demee man maa téye loxo Ablaye wadd ànd ak moom bu ca bunt ba mu mel ak am doole mel ni dafa dafa bañ mm-hmm. fekk man génne naa ko ba pare moo tax ab Ablaye Wade génn ci jàmm jàmm jàmm ak salaam la génne pale ba dafa woo Macky ne ko ne ko yow yaa gagné. troisième mandat bi. bi dama gis mari Marème fay sàll ak euh, Macky sàll ñoom ñaar dañoo romb roog soow te Marème fay sàll première dame dafa bëgg dara bu weex tàll. Mhm. coton yu diis yu yu mag yooyu. Hmm. bu weex tàll la lal ñu toog ci suuf. moom ak président ñu toog ci suuf ñoom ñaar ñu uuf seen ñetti kees mu ñetti mandat. Khalifa Sall raam Khalifa Sall quatre ans lañ ko waroon a tëj. waaw. gis nga quatre pieds. Mhm. dafa doon raam fil ñaari kees yi ñoom ñu dese benn. su benn bi fa filu woon. Mhm. ma ne troisième mandat du am. du am wallaahi gisuma daal loo xam ne dindi na ko man moom awma ci Macky sàll dara. Mhm. Macky Sall musuma may oto. kalandoo laay jël. Macky Sall musuma may passeport diplomate. coronavirus dañ maa convoqué ca brigade de recherche ne lu tax may wax coronavirus amul bu ma leen yàqal. maanaam Macky Sall aw ma ci moom terrain. Macky Sall sama benn doom bu góor bi musuma woone ma kaay. Macky Sall gën a xam Selbé Ndom defaluma dara kon man awma pour faral Macky Sall. Mhm. tey jii su ma xamoon ne président bii di ñëw. mi ngi ñëw. ma gis ko mu dugg ci pale bi te kooku laay dem ndax ma am ca dara bu nekkoon alal laa ci ut ah. mais yàlla moo ma gënal lu ma mënti am euh, troisième mandat hmm. ah man de balaa maa koo ñàkk a gis hmm. balaa ma ko gëm dama koo gisut ñemeetumaa wax dara Ousmane Sonko nag man yàlla dafa def dama koo gis Ousmane Sonko. Hmm. gis naa ko bu baax a baax a baax. Sonko gis naa ko. mu taxaw ci pale ba bunt bee. bunt bi féete nii fa la taxaw waaye maanaam bunt bi dafa tëj dañ koo tëjëk ay ay weñ yu diis mu am lu mu yor nee naa leen dañ may fay pour ma wax loolu mu saraxe ko billaahi wallahi watallaahi man taalibi sëriñ Tuubaa laa man li may am maanaam dépasse kenn joxuma ko may seet si nga sama pettaaw yi lii moom ma may kër ay Aïcha mm-hmm. pettaaw lu ci waay boole du dëgg nangay ngay dóor kese lii moom ma jëndal kër lii moo ma yóbbu Makka pendant quinze ans nit mayuma lu ma benn saako ceeb bu dul waali sekk mhm. moom ma fi may ceeb may ma fi meew may ma fi suukar lekk naa ci de waaye genn wàll gi yëpp dama ko joxe ba jënd sama juróom mi saako maanaam séddale waa koñ bi dix-huit saako kon maanaam tey ji mhm. man lii ginnaaw yàlla yonent bi moo ma teral waaye du kenn usmaan Sonko su bëggee xam la mu yore nañ ma fay. na nañ ma fay ma wax leen waaye ci kàttanu yàlla xam nga fa am loo xam ne boo nekk nii nga ne sëriñ nga. am nga xam-xam. yow dimbale ko. balaa ñoo dugal usmaan Sonko ca biib ba. dinaa génne vidéo yi balaa ngeen dem wax la ko wax nañ ko dama ko ne defal ndànk gis naa ñu dugal la ci oto bi. moom Ousmane Sonko bi ñu barricade. dara de Seydina Mohamed. Sonko yow yow yow Salim waa dañ koy bëgg a jàpp tabaski. wallaahi la azim déedéet booba jàppaguñ ko moo nekk bi mu doon dem te ñu jël ko dugal ko ci oto bi ah, bi wax naa ko bu yàgg balaa muy am laa ko wax. balaa muy am laa nekk laa ne ko moytul defal ndànk dalal toujours man damay wax Ousmane Sonko mu def ndànk rek. toujours damay wax Ousmane Sonko mu def ndànk ndax Ousmane Sonko li muy dugg yëpp ñi nga xam ne jege nañ ko man Selbé Ndom maa ko wax ñaa dama njéeme tungaan joomaay surtout buur bi surtout wàllu bi borom mbóofeel man selbe maa wax ne ñi nekk ci wetu Ousmane Sonko waruñu woon taxaw di seetaan ba Ousmane Sonko wax loo xam ne da ciy fay deux cent million muy benn ñaareel ba gis nga nguur kenn mënut a xeex ak moom doom ñaa ngi ci dee ku jur sa yaay ku dee seeyaay juraat amul man duma juraat sama benn bu góor bee bu dee woon tey benn këmalikuñ bu jigéen dong laay des fa am loo xam ne man Ousmane sunk c'est mon frère c'est mon petit frère maa ko mag Macky Sall moo ma mag mais man maa bu ma sañoon mu def ndànk maa ngi koy ñaanal nag yàlla ndax keroog bi affaire yi amee ba tar alxames mm-hmm. xam nga nu ma def mm. ba mu ak àjjuma ci lu weex laa sol ba pendant une semaine li ma dema woon ca Kaaba ga daweek moom safaak marwa wër wër Kaaba gi naan labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika laka billahi loolu laa jël di fanaane julli di wird biñ ma wonee géej laa ne affaire bi dina bàyyi barkati laa ilaha illa man bu ma neexee ma dugg xalwa su ma neexee ma xaar lu ma neex laay def parce que wallahi gis nga wax sax baaxul def ci man jéem maa yàq yàq la jéem maa yàq la ku ànd ak yàlla waral kër gi amul téere kër gi doo fi gis téere kon man bu ma sañoon Ousmane Sonko daal di dal rek fan yi nag moom dal na kenn gisu ko ci dara alhamdulilah ñu koy ñaanal yàlla suñu borom teggi nag yi ndax ku ëmb sa doom wasin nàmpal ba mu am vingt ans boo sañoon mu takk jabar boo sañoon mu jural la sët ngay teete sa sët di leen éduquer ba dee bàyyi leen fi man mosañoon Ousmane Sonko dara du ko daal billaahi wallahi watallaahi man maa fi njëkk a tudde Ousmane Sonko ibadullahi saalihin kon ci buntu pale bi nga ko gis gisoo sax benn tànkam dugg ci biir déggoo li ma la wax gis nga yii bu paase. Hmm. ci kàttanu yàlla hmm. maanaam ah nañ ma fay rek nan ma fay ba dafa am loo téye loo xam ci Ousmane Sonko loo xam ne tànk fay ñu ko doo ko wax. tànk maa ngi téye loo xam ne téyewu ma ko benn loxo de ñaari loxo laa ko téye ci loo xam ne. Mhm. Ousmane Sonko xam na Selbé Ousmane Sonko daf ma bëgg man. wallaahi la azim mais toujours ñu ko jege ñoo ko yàqal. ci kenn koo xam ne dafa werante woon ak man ku ko jege lam ma wax moo ma naqare bu ma dee maa la yóbbu àjjana ndax moom xam na fu mu jëm ba man di ma yóbbu àjjana ma boloke ko ne ko yow di xam ne man ak yow la man taalibi Serigne Touba laa ni ma gis nii xoolal dama dof ci yàlla toujours nit ñi fa ñuy foog ne foofa la du foofu fañ dul foog yàlla ma ngi fa def loo xam ne yàlla day génne lëndëm da ciy génn ak leer mm-hmm. ak leer da ciy génn ak lëndëm mm-hmm. maanaam juge nit moo baaxut moo tax man dama daan tekk benn man seetkat maa fi naan dimanche bii di ñëw làmb ji boor bii lay doon kii mooy nekk président kii du